waa gars yi waaw ñu ngi fi de justice gis ngeen suñu gars yi fii la ñu nekk voilà ñëw nañu donc euh, ñu ngi leen di xaar ci affaire u Pape Diop bi encore tey tey la ñu war a xam ndax dañ koy indict wala duñ ko indict donc euh, buñ ko indictee nag comme niñ leen ko waxee avant mooy procédure bi dafay continuer maanaam ba ate bi jot legi buñ ko indaayitul moy tay la mbiri yep di jeex mu ñibi kërëm donc euh, ñaanal leen ko yalla yalla nga xamne lolu moy deug rek yalla na ko def inshallah rabbi donc comme niñ koy waxe encore toujours euh, dañu xam lu bari ci cas bi donc moy waral tay ñu ñëw fi di bëgg yoon def liggéeyam sans pour autant nak comme niñ leen koy waxee ñu fi pour parlo ndax ñun dañuy wax toujours lii dëgg rek yàlla na yàlla feeñal dëgg voilà donc euh, suñu xaritu alkaat yi ngeen gis ni voilà yéen a ngi leen di gis ñoo nekk ni alkaat yaa ngi fi lu bari mais pour sécuriser ñu la rek donc gars yi ñëw leen massivement comme niñ koy defee toujours incha allahu rabbi ñu représenté Sénégal ki nga xam ne mooy suñu frère bi Pape Diop ñu bëgg rek yoon def liggéeyam ndax dañu dafa am ay euh, inconsistance yu bari ci cas bi donc ñu bañ rek ñu sànq doomu jàmbur ci ay erreur donc ñu bëgg rek ñëpp ñëw def seen kéem kattan li fi dëgg rek yàlla feeñal ko donc ñu ngi fi cent soixante 161 bëgg vraiment ñu waxtaan yéen ñëpp ngeen xam li nga xam ne moom moo fi nekk tey incha allah voilà ñu ngi fi donc yéen ñëpp ñëw leen facilement ñu taxaw suñu frère bi Pape Diop incha allahu rabbi waa ñëw leen massivement ah comme niñ koy defee toujours rek boo leen ñëwee ñu ngi fii cent soixante